tontul Macky Sall lu njëkk interview bu njëkk gannaaw bi mu wàccee ci nguurug Sénégal ak euh, léegi ndi euh, leeral ci chiffre yi Ousmane Sonko keroog ca conférence de presse ba waxe woon ni nag dañ koo falsifié ngir euh, wàññi dette beeg déficit bi mu ni loolu du dëgg c'est totalement foo la wax euh, nii nag euh, ñaaw na lool Sénégal dem ba ñuy àgg foo xamante ne nii dañuy dégradé notam euh, te sukkandiku ci kilifa yoo xamante ne nii ñoo yor réew mi seen i kàddu la moom nag nee na doonut loo xamante ne nii mooy li ñu war a sukkandiku fi mu ne nii nag ngir di def leneen lu mu mën a doon mu ngi yëkkatee kàddu yi tey jii ca Londres ci sunu naataango yu. doonut nag li ma neex li tax moo gis daal di wàññi notu Sénégal ci loo xamante ne nii moo jëm nag. nag ci dette souveraine bi loolee lépp gannaaw nag ay déclaration yu premier ministre yi muy jiiñ ay scandale ci régime bi fi nekkoon yooyu la déclaration nag du leen loo xamante na ci ak dëgg dara du ci dëgg kenn ne nii moo jëm nag ci boobule audit ministre yi nga xamante ne nii ñoom lañ ci joxar bi baaraam ñoom daanaka amuñu sax accès ci document bu nu mel jotewuñ ci te normalement danoo waroon a xam nag ana lan lañ leen sikkal ci conclusion yi bu ko defee ñu mën cee joxe seen kàddu dañ koy dëggal wala dañ koy weddi laataa sax nag ñuy publier lu nu mel moo tax ma jàpp ni nag gàcce la bu fekkente ne nii Sénégal dem na ba notom nag ñu daal di koy wàññi ndax kàddu yi nga xamante ne nii premier ministre yëkkati na ko lañ waroon naa def mooy xaar nag conclusion Cour des comptes laataa nag ñuy accuser kenn moo tax ma jàpp ni lii lépp nag dafa war daal dee dakk bu ko defee ñu jublu ci li nga xamante ne nii mooy farata te yitteel réew mi man Sénégal bi mu fiy jóge ay indicateur yu solide laa fi bàyyi sax daal dina dëggal lu nu mel ci de mai moo tax kenn mënul tëb di jiiñ ay nit li nga xamante ne nii ñoom sax xamuñu luñ leen di taqal wala di leen ko sikkal lu mu doon. kaddu yi ci Bloomberg Bloomberg moom moo ne nag senegal mën na am mu génn ci list grise bu Gafi le vingt cinq octobre gannaaw équipe bu fi ñëwoon ba waxtaan ak réew mi gis ni nag def nañu ay jéego doon na nag xabaar boo xam ne El Hadj Ndiogou Diène jottali woon nañu ko ci fan yële ñu génn ñeenti minutes gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media. Bakel la gannaaw ndox ma jafe-jafe yu métti yoo xam ne nit ñi nag ñu ngi jànkonteeg moom fi mu ne nii nde kenn mun a tuta ci sab euh, nekk ndax euh, ndox mi ni mu nangoo lu ci bëri rawatina nag ci gox yu mel ni Baaloo Gol mi ñu ni nag fi mu ne nii gouvernement bi luy jot jot na li muy def mi ngi bëgg a yeex Pape seenu Diallo askanu baalu nekk ci jafe-jafe yu tar ginnaaw ba seen kër yëpp nekkee ci biir ndox bi li ñu mel nag mu indi leen naqar ba tax na ku yor seen kàddu di jàngalekat mi ngi joxoon baaraam nguur gi ci situation bu ñuy dund. situation bi dafa critique ba léegi ci commune de Baalu famille yi ñoo ngi fii sans espoir ministre de l'intérieur ak délégation am ñoo ñëwoon fii démb ba léegi gisuñu dara indiwuñu dara pas ay machine de pompage pas ay machine vacuation ak ay tiwo te tey population bi dafa sonn. dañoo découragé amuñu sax lekk ñoo ngi woo vraiment autorité yi ñu jël ay mesures au plus vite possible. lu ñu nemmeeku ci baalu moo am ci yeneen gox dëkk bi di gol mi tamit nekk ci jafe-jafe comme ni ko Amadou ñaar di ñu ko nettali moom mi nga xam ne ci gox bi la dëkk. ndox bi fu mu toll nii jéggi na dayoo. fii mooy ñeent fan ñi ngi fii ci biir ndox. suñu kër yi ay néegi ñu ngi daanu ñun ngi ñii ci bâtiment suñu tànk yi foo wàcc ci ndox la ñu ngi ndox bi mi ngi amuñu ndox boutique yi tëj nañ amoo mburu amoo dara doo mën a gis dara ci dëkk bi nga xamante ngay gis lekk la ku nekk ñu ngi jaaxle nit ñi ci kaw terrasse yi la ñu nekk naaj bi mi ngi lay sonal te mun na taw mu yàq say bagage te yow ngay gën a feebar vraiment ñu dénonçons la dégg nañ autorités yi dañuy ñëw ci département Bakel mais fii autorités yi kenn eggu fi dégg nañ tamit ay wax ci dañuy am ay aide te gisuñu aide fu mu toll nii fukk ak ñaari gox yu nekk ci département bu Bakel la mbënd mi laal arandu dugg fa wala génn fa nekk na lu jafe gaal mooy tax ñu dugg wala ñu génn Tambacounda Pape seenu Diallo rajo Futur Média. Sidiki Kaba premier ministre Macky Sall bi mujjoon mi ngi sàkku nag lu ñuy def ñu gaaw ci lool fi mu ne nii ndax nit ñi sonn nañ ci soxla nañ ko. xew-xew bi am ci barrage Manantali ci Mali andi na situation bu doy waar ndax inondation bu grave moo fa nekk yàq lu bare askan bi fu mu toll nii dafa jaaxle loolu looloo tax maa ngi wax ne ko dañu war a jóg pour dimbale leen ñi nekk Tambacounda ñi nekk ci yeneen dëkk ak diaspora kenn waratul toog ñëpp dañu war a def lu ñu mun pour dimbali leen ndax seen situation bu situation bu doy war la état bi autorité administrative ñoom ñëpp dañuy teel def li nga xam ne dina tax population bi dinañ xam ne ko fàttewuñu leen ndax ñu ngi ci situation bu doy waar. ay téeméeri téeméeri hectare ci tool yoo xamante ne ni ceeb lañ ko bayoon wala pataas fi mu ne nii nag dana yàqu. le conseil départemental bi ki ko jiite wax nee na plan ORSEC rek lan yaakaar ne moo ci man dara ma paate si lii pàcc ci waxtaanu muy séq ak nun ci kanam tuuti mooy doon sunu gan ak ndongo ka laaj nañ ay tant tey nag gis nañ waa croix rouge wax dëgg fa yàlla ñoo ngi leen di jaajëfal indi ay tant di ko monter pour yenn population yi ñu mën leen déménager foofu commune Baalu daanaka moom moo doon dundal département bu Bakel ay téeméeri téeméeri hectares yoo xam ne mbayum ceeb bi mbayum patate douce bi mbayum kaane bi mbokk meeg ñoom seen lépp yàqu na kon nag nañ xaar ay weer ci kanam yoo xam ne population bi dina souffrir ndax duñu am lu ñu lekk ci pataas boobee quantité bi yaa ngi doon wax léegi daanaka jege na téeméer ci ay tonnes yaafeera dong daana joxe téeméeri tonu patate douce par an waxuma la nag yeneen dëkk yi donc di fii récolté ci patate douce par an dina jege mille tonnes de patate douce par par an mm. xam nga loolu lépp bu seeyee dina métti ci population bi mm. ndax bala ñoo dugg ci campagne dañuy leb ay dañuy leb ci banque yi bor bor yooyu mënatuñ ko fay culture contre saison bi dañuy ñaan état bi mu jàpp ci accompagner population yi parce que dañuy dafa mel ni dañuy reprendre nangu seen i kër nga ni delluwaat seen kër moom euh, du doon loo xamante ne lu gaaw lay doon. non yaakaaruñ ko léegi te li fa dugg ci ndox xalaatuñ sax ne mën nañ ko pomper pour yóbbu ko feneen. tant que niveau fleuve bi wàccul ñooñu mënatuñ dellu si seen dëkkuwaay. yàgg xaar bi walla ah man de ci sama xalaat. mënul nekk fii benn weer wala ñaari weer donc dina doon période bu gudd boo xam ne population bi nar na ko nar na ko souffrir. mais est-ce que tamit euh, yellul ñu daal di déclencher plan Orsec boo xamante ne dañ koy jagleel département bu Bakel. moom la ñuy xaar ci état bi. suñuy population sonn na. bu ñu amul yenn assistance yi. ay feebar sax xëj na ci ëllëg. parce que nit ko amul fu bu tëdd amoo loo lekk. amoo loo loo daan nga baal ma ci wax ji dem ginnaaw kër sax souvent problème la ndaxte fosse yi fees na. Hmm. waxtaan wi dina gën a yaatu ci njeexitu xibaar yi ministre de l'intérieur démb ma nga woon ca diwaan boobee mujjul woon a mën a yegg maatam tey jii la xëy nag euh, jawali fa ba mu yeggee foofu nag euh, dem na ba gis euh, nit ñi ni ndox mi def seen kër yi nee na woote yi war a yóbbu dund bi ak tante yi nga xam ni dinañ ko mën a lemmi tëdd ci léegi mu yegg Ali Bandel Niang gannaaw bi mu yegsee ci benn vol avion militaire ministre de l'intérieur dafa rek daal di jublu département bu la téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn kilomètre la ñu daw ci rn bi laata ñuy yegg ca Dembankaani ci gox bi bokk ci dëkk yu bare bare yi nga xam ni jamono yi ndox bi jóge ci dexub Sénégal daf leen wutali ay kër yu daanu ay habitation yi nga xamante ni mu ngi tëmb ci biir ndox mu jur ay njaboot yu bare nga xamante ni loru nañu ba ñenn ñi ci gën a bëri ñoo ngi leen di déplacé yóbbu leen ci école dëkk bi gannaaw bi mu visité ndox mi ni mu yàqee duggee ci biir dëkk bi Jean Baptiste Tine doog a dem nag masawu ñi nga xam ni ñoo loru daal di leen di jébbal itam ab message bi ci président de la république ak ak premier ministre am ndox mi dina xool nit ñi daax leen seen kër yi yàq tool yi lu mel noonu moom lañ fi fekk démankaane principalement mais am na lu tolloog kii dëkk yoo xam ne démankaane mel moom moo leen daal mu nekk lu métti métti métti ñëw fi ci turu président la république ci turu premier ministre pour masawu askan wi mais ñoo ko bokk métti na lool na ndogalu yàlla ñoo ko bokk ñi génn seen am na gaa nekk ci école mais ñu si bëre ñu ngi mbokk yi ñu ngi xarit ñu ngi seen kër yi dëkkandoo wax rek ne sama tànk wax leen que bi seetaanu leen du leen seetaan xam ne lii dogalu yàlla dina dina jeex nañ yàlla bi nga xam ne ba ñu toll nii benn ci déplacement bi ñu doon def ca dembankaani nag mu amee ci ay conditions yu jafe lool ci ab dëkk bi nga xamante ni tey jii dugg wala génn doon na lu mënatul nekk ci waxtu bu ne laata mu fi bawoo nag ministre de l'intérieur daal di dalal xelu askan wi lépp lu war ngir indi assistance nguur gi ñu ngi ci kawam ndax nag am na ci pàcc bu gën a yaatu bi nga xam ni sax tàmbali naa yegg si mu nekkoon sa naataango Waly Bandel ñaa fi ci doonu maatam pour RFM. di xabaar bu leen dul neex ndox mi war a dolli ko waat bile yoon jógee ci jaww ji taw boo xam ni météo nee na Bakel googu ak maatam ba Ndar dana ko fa taw ci ñaari fan yi ñu dëgmal ndox moom nag mën naa yegsi ba Saalum digg réew mi jàll si sax ba Ndakaaru Pape Ngor Ndiaye. ëllëg ci àllarba bi fukki fan ak euh, juróom benn ci weeru octobre jëm ba alxames fukki fan ak euh, juróom ñaar ci weeru octobre muy ay taw yoo xam ne dinañ ko xaarandi ëllëg ci penku réew mi daanaka ci diggu bëccëg gi diggante Bakel Tamba Kédougou taw yooyu nag dana laalaale maatam ci diggu bëccëg gi bu ñemee ba ngoon jàpp guddi gi taw yooyu dina dugg ci diggu réew mi ak waa boori Casamance maanaam Diourbel Fatick Kaolack Kaffrine waaye tamit Ziguinchor Sédhiou Kolda taw yooyu nag bu ñu demee ba ci guddi gi jàpp bëset taw dana laal ba gànnaar réew mi rawatina Ndar Podor Linguère Louga waaye tamit Ndakaaru ak li ko wër maanaam Ndakaaru cees ak Mbour ci guddi bëccëg gi ci euh, xaaju guddi gi mbokk yi jëm ba ci bëset bi mu ne ba ci alxames nag naka noonu taw yi dana desandi ci sow dëkk bi maanaam boori Casamance jàpp Petite Côte bi jëm ba boori Kaolack Diourbel waaye tam Ndakaaru ak li ko wër fukki minit ak ñaar gannaaw euh, juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu dalee ko àllarbay suba ji eh, di fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre dinañu tàmbali garawu ñetti fan boo xamante ne nii bu eh, saafara amul ñu dolliwaat ko ñoom waa COMES collectif des médecins pharmaciens et chirurgiens dentistes yi nga xamante ne nii nag li ñu bëgg ci ministère de la santé mooy prime yi ñu tolloole ko ak eh, grade yëpp ñëpp yemle ko loolu nag mooy dogal bi nga xam ni moom la ñu fas yéene jël tey jii ci ndaje moo xam ni amal nañu ko. Euh, beneen syndicat bu ñaawlu lu am di syndicat autonome des travailleurs du port autonome di portum ndakaaru bi ñetti syndicat yoo xamante ne nii ci UNSAS lañ bokk ñoom ñëpp nee nañu directeur bu bees bi di Waly Diouf Bodiang bi mu ñëwee ak léegi li mu dakkal ci ay contrat dafa ëpp ñu ko doon ñaawlu assemblée générale lañ doon amal ñu ànd ci euh, nett liggéey Gabriel Collègue Mouhamadou Ababayo liggéeykat yu port autonome bu Dakar kontaanuñu ci doxalinu directeur général bu por autonome bu Dakar ndax dañoo jàpp ne dafa gàntal ay contrat yu bari bu Diagne mooy secrétaire général bu SATPAT. depuis am jours ñu ngi doon waxtaan ak di négocier la direction générale bi ñuy négocier ak direction bi yëpp yéen yéen taxaw di xaar ñu ngi suspendre seeni contrat lépp ñu bëgg jàmm amoon yaakaar ni di ngeen ci kër gi parce que ci ngeen bokk ci njaboot Johnson ñoo jeexal contrat 116 yëpp ñu ngi SATPAT di ñaawlu ba tey audit yi nga xam ne ñu ngi koy amal ndax dafa am jeexital ci ay contrat yu bari. toujours dans le cadre de l'audit audit. secrétaire général bu SATPAT di sàkku ci directeur général bu port otonom bu Dakar ngir mu delloo ci xelam daal di renouveler mboolem contrat way liggéeykat yi. na direction bi revenir à la raison delloo nit ñi seeni contrat ñu dellu seen liggéey dindi stress bi leen teg ak pression bi leen teg loolu mooy dëgg suñuy prime ñoo ngi ñu téye lépp ci fas yéene na daje ak mboolem autorité compétente yi laata muy amal benn préavis de grève ba noppi war a amal benn sitting ci fan yi ñu dëgmal. ñu wéy ci biir euh, xibaar yi ak euh, programme bi nga xam ne nag euh, ci la ñu fas yéene yore Sénégal muy président Diomaye Faye ak Ousmane Sonko démb bi ñu ko présenté ba noppi nag ñuy wéy di laaj secteurs yi ba xam nan lañ gisee seen bopp ci lañ leen waajal ci biir tey jii mbay mi ak càmm gi. ñoom nag nee nañu yaakaaroon nañ lu ëpp li nga xam ne moom la ñu dégg démb ci présentation bi Omar Mbow bëri na ay secteurs yi nga xamante ni daal dinañ jàpp ne dañ leen kon wormaalul ci programme développement bu 2050 ay acteurs yu bëri yu yëngu ci wàllu mbay mi napp gi ak sàmm gi di xamle ne document bi nga xamante ni moom la président de la république ak premier ministre am daal di présenté am na ay lënt-lënt yu bëri yu ci nekk mu amit ay manquement yu bëri boo xoolee sax baykat yu nekkee ca bassin bu arachidier ñoom gisuñ ci seen bopp li nu mel nag nekk kaddu secrétaire général bi di Cheikh Tidiane Cissé boolewuñu ci eh, et que par contre situation bi nga xam ne fi mu nekk ni moom la ñuy wax euh, recapitalisation du capital semencier kii un mu nekk ci benn ci fonds yi nga xam ne tey jii moo mën a taxawal gerte gi pour mu mën a dem loolu aussi euh, gisuñ ko si euh, waxuñ ko si naka lañ koy doxalee bon sur le plan dégg nga maam ci wax ji nga xam ne dégg nga maam moy affaire yi gerte gi nga xam ne dégg nga maam meññul loolu aussi nga xam ne mu ngi nekk inquiétude si mondial bi loolu gisuñ ci dara waxuñ ci dara dégg nga maam baa ngi nii di waaj ñëw aussi waxuñ ci dara gerte nga xam ne tey jii moo fi njëkk nekk gerte goo xam ne aussi mooy gerte de rente maanaam moom lañ daan jaay pour man ci faji suñu soxla aussi waxuñ ci dara xamuñ lu xew et vraiment gisaguñ daal le bout du tunnel. ca Burkina bu mu nekk jamono ji te it foofee la seetaan lancement programme développement bu 2050 njiitu maison des éleveurs du Sénégal Ismaël Sow ne xool na document bi yëpp saytu ko bu baax a baax itam waaye mbetteel kese la si jëlee. ndax di ngeen dégg problème bi am diggante béykat ak sàmmkat eh, ñoo ngi def tey nag révision loi d'orientation agro sylvopastoral lancé nañ ko burki dem waaye document yi ma ci jit gi joto gis nag wax dëgg yàlla élevage waroon nañu ko gëna bàyyi xel eh, te gis nga tey am na benn éleveur boo xam ne bi dafa ñàkk ay nagam ci benn fuudaru ci dënd dund boobu moo rëy ci ay jur yu bari ay fukk ak quelque te loolu tey war na ci biir loi d'orientation agro-sylvo-pastorale bi ñu seetaat aussi li nga xam ne moom mooy assurance agricole bi éleveur yi xam nan lañuy ñuy woo pour que ñu mun a assurer seeni jur. ñu yëngu ci wàllu mbay mi ak càmm gi di laaj kon gouvernement bi daal di xoolaat bile document ndaxte nag jàpp nañ ni développement du mus am tant que amuñu considération ak it ndimbal bu baax a baax ci yile secteur. ak RFM kumba tàggoo nag yéen. Maimouna Dieye ministre de la famille ak euh, ni mu waxee dënn ci Abbas Fall tuuma ji ko topp ñu ni dañ ko neexale juróomi milliard ci contrat Azer bi mu ni même bu dee moo ko def moo tey. loolu nag ak euh, ñoom ni ñu daan waxee ci wàllu bonne gouvernance euh, tax ñu ci taxaw fi mu ne nii am ñu ni nag dañoo commencé mandinguur regg bay bajantu ak itam mbewte goo xam ni moo leen dab fi mu ne nii ba tax ñuy waxee nu ni mel Ibrahima Jàmme diw lekk na xaw ma ñaata milliards du waxi nit bu amee moo tey yumte la ci biir wax erreur de communication wala bokk arrogance déclaration bi nga xamante ni ministre de la famille et des solidarité moom moo ko yëkkati daanaka bett na ñu bëri docteur Souleymane Lo moom sociologue la jàpp ne moom wax la ju nga xamante ne ministre de la république waru ko yëkkati mais loolu moom wax xamante ni wax dëgg yàlla ci ko dégg da nga ci am kersa am ko gàcca surtout yoo xamante ni la ko wax du militant rek mais ministre de la république la di koo xamante ni tey. di ko dimbale. njuum na loolu njuumte gu rëy la. duñ la dénk dara. ci am réew waxuma sax ki nga xam ne dañ koy jiñte déedéet ki nga xam ne rek moom dafa def def ne rek xees ñoo far ñoo ñoo ànd ñoo bokk ci nguur gi boo koy dimbalee doo ko dimbalee noonu. docteur Souleymane Lo jàpp ne comportement bi ni mel nag dafay tax ñu xalaat mbirum arrogance folie du pouvoir wone itam li nga xamante ne am lañ lu leen metti lool ci accusation yi ñu yëkkati. parce que damay jàpp ne li a yu mel noonu mooy genre euh, nit ki am wax ji dëgg wala du dëgg ndaxte lu ni mel euh, ñoom nag ñu waroon am taxawaay boo xamante ni mooy ñu fexe ba leeral ko euh, ndaxte loolu mooy jub jubal jubal ci boobu dafa nekk loo xamante ni dañ ko di sénégalais yi ni ñu gëm ko kaddu gi nga xamante ne nag ministre Maïmouna nag fekk na kii di Abass mi nga xamante ne moom la ñu tudd fekk na yóbbu na mbir mi ci yoon ngir ñu indi ci leer. Euh, éliminatoire Sénégal mi qualifié gannaaw ndamam. ndam lu euh, sedd xol ndax moo qualifié euh, Sénégal ci Coupe d'Afrique des Nations mille vingt cinq ca Maroc ab coup nag la Sadio Mané teg dugal ko Pape cow mi wutu Aliou ci bopp gaynde yi rafetlu ko lool wax ne mission accomplie ci kàllaamay nasaraan maanaam lu ñu leen sasoon def nañ ko ñu teewluwaat Pape cow avant tout dañuy dañuy sant yàlla parce que lu ñu fi andi woon yàlla jox nañu ko donc dañ ko siy sant tey jii nii euh, bëggoon nañ qualifié wane nañ ko déjà si terrain bi fin bi nu ñu nu ñu joué et loolu noonu tamit mettre tamit ay attaquant parce que xam na ni tamit football pour euh, pour pour gagner il faut nga dugal ay buts donc euh, benn moment il fallait ñu ñu ñu dugal suñu ay attaquant ñu yaakaar ni dinañu gën a yombal pour ñu am but mais finalement am nañ but bi sant yàlla vraiment sant yàlla ba pare di féliciter joueur parce que du man kese c'est travail d'un groupe un travail d'équipe ay équipe boo xam ne ñun ñëpp ensemble la tey jii nii peut-être mën la yàlla def si si bopp bi mais dañuy sant yàlla na nañuy ah, mission bu bu ñu joxoon su suñu waa dëkk joxoon vraiment accomplir nañ ko lool nag dañuy sant yàlla di ci di ko ci di ko ci gërëm bu baax a baax et di féliciter les joueurs Pape chaw euh, kiy tàggat euh, gaynde yi délégation bu Sénégal di ñib siwaat euh, Dakar ba mu des ñi nga xamee ne kon ñooy jongante ci championnat bu Arabie Saoudite bokk na ci ñoom Sadio Mané ak Kalidou Koulibaly ñoom dañuy ñibbi directement ci seeni club yeneen résultat yuy qualification quatrième journée bu CAN 2025 Sierra na moo def surprise gannaaw ba mu daane Côte d'Ivoire tey benn bal ci dara Égypte dem fekki Mauritanie daan ko benn bal ci dara moom it Soudan Ghana debut buts à 0 0 bi partout diggante Guinée Bissau mi dalal Mali Maroc dem fekki République centrafricaine doon ko ñeenti bal ci dara ñetti bal ci dara moom la Guinée daan Éthiopie ca dëkkam ñu xuus dem foofu ca zone am sud ak qualification coupe du monde yi ñu fay amal dixième journée ba Argentine ca zéro heure bu jotee ci kanam tuuti mooy premier nag bu poule bi mooy dalal Bolivie nekk jamono ji sixième ci poule unique qualification bi Brésil mi nekk quatrième jamono ji di xaar Pérou euh, neuvième bu zéro heure quarante cinq minutes jotee. oui ak euh, footballu euh, tefes gi gaynde yi dem nañ ci Coupe d'Afrique ba ci Égypte. di dem ngir jël seen ñette juróom-ñetteelu ndam muy juróom-ñetteelu trophée ci Coupe d'Afrique des Nations bu beach soccer tey nag lañ ko fësal gannaaw bi nga xamee ne. ñoo ngi doon jël seen drapeau drapeau réew mi ci loxoy ministre des sports Khady Diène Gaye Soda Thiam bataaxal bi njiital réew mi yónnee jaarale ko ci ministre de la jeunesse des sports et de la culture joueur yi dégg nañ ko bu baax ci noonee Alseyni Ndiaye ak Seydina Mandione Laye Diagne di ci àddu. santaale bu baax a baax. ba ñëw ñu jox la bi tamit yombul kon li ci des moom ñun la. mooy ñu concentré waat rek xam ne lu bëreeg ñu ngi tamit sénégalais tamit ñu ñuy xaar. te dinañ ko dem ci liwaat kon tamit rek incha allah bu ñu jotee raay dëkk bi moom source de motivation ñun donc tey mën nañu wax message du président de la république na dégg nañ ko donc à travers suñu ministre des sports bi si ñun la des instant bi ñoom li ñu war a def yëpp def nañ ko pour que la nuit du 26 octobre Sénégal nekkaat champion d'Afrique incha pour la lu ni mel itam nañu nemmeeku euh, ci staff technique bi kay tàggat gaynde yi di Omar Ngalla Sylla di rafetlu discours ministre. Khady Diène Gaye comme ni ko ministre bi waxee rek euh, nañu booloo doon benn c'est dans l'unité qu'on peut gagner des trophées ñu ñëw ñu ngi woo ñëpp en tout cas dinañ dem humblement modestement bu ñu duggee si terrain bi lu mu ñu ko jaral dinañ ko jëm suñu tëgg lay kantan pour mën a indiwaat fii titre bi incha allah comme dañ koy jël sept fois bëgg a du ñuy dem pour défendre suñu mais lu mu jaral ñooñu rek ñu ne ko jaral lu ëpp ci loolee nag ñu jàpp ni kon édition CAN Beach Soccer bi niveau bi dina kawe lool waaye nag teewul gaynde yi jàpp confiance bu ñu sukkandikoo ci Amar Samb boo ànd ak ñoo xamante ne nii miin nañ affaire yi te xam nañ affaire yi nga ñëw accompagner leen comme un jeune yàlla dinañu dolli sutura daal équipe yi ñun d'accord nañ liggéey nañ pour ñëw mais ñun aussi tooguñu doy di seetaan. Sénégal fi mu nekk nii mi ngi ci dernière ligne droite ngir mën a défendre titre kan boobule nag ñi ngi koy amal fukki fan ak juróom jàpp ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru octobre gi ñu ne ca Hurghada ca Égypte. Soda Thiam di xibaar bi ndarkepp xibaaru tàggat